Euh, li leen di déranger li gêner nit ñi léegi mooy seen vie yi ñuy exposé si biti est-ce que ñoom ñooy exposé seen vie ci biti wala nit ñi ñooy dugg ci seen biir biiri vie c'est une question que je pose à à, à Bijou Ngoné par exemple waaw waaw Bijou <laughs> yow yaa exposé wala ñoom ñooy dugg <laughs> comment comment tu arrives à gérer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie publique xam nga sànq yaa ngi wax naan euh, d'accord ci niñ koy célébrer mhm. ñii ne xamuñu thème bi lan la. absolument pourtant kenn ku ci nekk yaa ngi jéem xool nooy bayee sa mm-hmm. pour nit ñi xam exactement ci li nga nekk. Euh, man ci domaine bi ma nekk kese laa mën a waxee. Mm-hmm. Euh, nit kenn ku ci nekk mën nga am parce que benn benn aliment mën na ne euh, wax dëgg yàlla man fii ak fii laa yem ak sama ay téléspectateurs fii ak fii laa yem ak mais man. personnellement euh, du question de dañuy exposer suñu ay vie privée wala soit nit ñi dañuy dugg si suñu vie privée moi je me dis man Bijou Ngoné li ma bëgg ñu gis rek la ñuy gis et ci loolu ñoom ci la ñuy ci lañuy am contenu boo xamante ne parfois tamit si tu très franche moom laay wax sànq euh, Sénégalais yi ñoo lay stigmatiser ba pare ne la boo waxee lu tax nga wax. si tu caches quoi. Mm-hmm. waaw bu fekkee da ngay wax dëgg à chaque fois ñu ne kii dafa arrogante. Euh, man je me dis Euh, je suis pas sincère bu fekkee ne dafa am yow xamante ne dama koy nëbb c'est visible benn bijou bu pataa woon nga gestu gis ko mu jeex c'est très visible lan nga bëgg ma wax leen bu ma ñëwee dama naan tee bi publicité mensongère ngeen bëgg ma defal leen ko mënul nekk mënul nekk parce que tey bijou bëgg na kit ak sa conscience que kii ñëw na proposé ma fay ma xaalis boo xamante ne ne ma leen lii nga naan pour jeex mun naa dem jëndi ko xam naa nu ñuy jëlee vol yi xam naa ñuy demee Chine pour defar ko lii lay jaay pour jeex mais est-ce que jig na Adja bi nga xamante ne mi ngi dund. traumatisme stigmatisation bi nga xam ne mu ngi commencé ci biir kër yi. absolument. sur le body shaming. da sew. yow ñuul nga léegi. yow loo def fa jeex. yow nangam ak nangam Sénégal lañ nekk. lépp la ñuy wax waaye boo waxee lépp ñu ne amoo vie privée. Mhm. wala yaa ngi jël sa vie privée exposé ko la ngeen bëgg ma wax leen. mais foofu kese laa mënoo laa mën a waxee boo waxee ñu ne la par exemple chirurgie esthétique wala nangam ak nangam c'est privé mais man mi nga xam ne maay toog ci télé bi di wax mais forcément. absolument man gëw ma ni man sama physique léegi privé la. c'est ko te bu ma leen poussé aska ngeen dem jënd benn affaire ne gëm loo leen ne lii laa wax ci influence bi ma am ci di leen jaay kaas bi mhm. ngeen koy jënd mais damay def publicité mensongère ngeen dem jënd ko ñii am insuffisance rénale ñii am problème ñii ñii focus ci naan ko ba dee <laughs> faatu yàlla waa boo demee boo yeggee looy wax yàlla suñu borom donc ça dépend en fait nit kenn ku ci nekk ak façon bi ngay gisee peut-être ajaab moom du defee nii mais bijou am na benn liberté boo xamante ne man lu ma waaye laaj je suis pragmatique moo tax je parle pas trop confrontation yi laay communiquer ak mois de mars mm. comme ni ñu tàmmee di ko wax à chaque fois bu dul mois de mars moom je suis une très grande muette. damay noppi ba booba. lu ma waaye wax ma xaar ba mars tontu la. <laughs> mais suñu vie privée yi exposé wuñ ko quand même. yéen yéen na ñuy topp ba ñu sës. et que wax dëgg yàlla euh, man man xam naa question bi sax Adja li tax nga nga nga jiitee ko ci man. parce que man yëpp maa koy expliqué. <laughs> te bu ma ko expliquer ñoom alima yi duñ ma bàyyi. <laughs> ndax dañ lay bëgg rey ani monsieur Diw. waaw ani Diw dama kenn nekkul. kenn mu leer. waaw léeg ma ne leen Alpha Thiam fi ne téeméer nga dund xam nga yooyu la rek. dëgg la waaw du Alpha Thiam. parce que réew mi forum Alpha Thiam pentir na mbir ma maa nekk fépp. loolu moom ala kulli al alima réew mi moom léegi moom wax dëgg yàlla ba nga dégg dëgg. alima sama vie man dama ko suukar kenn ma stress. Mhm. boo ma laajee dama lay tontu li nga xamante ne wax dëgg yàlla moo ci nekk. Mhm. buñ ci jàllee parce que doo ma gis man baaliw ma bokk ma tuur bokk ma natt bokk ma benn mbootaayu jigéen. yaa ngi baali nag. Euh, non non maanaam baali bi ci Waly Seck liggéey la. te damay dem ñu fay ma. ah la <laughs> waaw waaw pecc mi ak wër ak Serigne Touba Ndiaye bi. ak neex yëpp liggéey la daf may fay. <laughs> Alima daf may fay. Alima comment comment euh, euh, regard boobu société bi am si ñi nga xam ne c'est les c'est des femmes surtout femmes tey femmes la ñuy wax des femmes publiques je pense que et déjà une personne publique c'est difficile d'avoir quelque chose de privé comme ni ko comme ni ko comme ni ko Bijou waxee mm-hmm. parce que ñun ci suñu bopp c'est nous qui dans l'intimité des gens mhm. tey je suis sûr que ñi ngi toog seen kër yi seen biir néeg tëdd seen kaw lal yi di seetaan seen TV mhm. di seetaan émission seen TV kon ñun ñoo dugg seen intimité léegi ñun bu ñu duggee seen intimité ba pare ñoom it il faut qu'ils cherchent à rentrer dans notre intimité léegi euh, Rubicon bi fan lay yam fan fan mooy barrière bi nga yaakaar entre vie publique et vie privée. xam nga xam nga Adja pour man ñun li ñuy def nii cest à ku nekk il faut nga xam li ngay def lan la. il faut qu'on s'assume et qu'on assume ce que l'on mm-hmm. loolu daf ci am daf ci am solo c'est-à-dire ñu xam Alima xam na ni euh, dafay génn télé mënuma tere keneen kenn wax ci man mënuma ko tere mais man damay fexe ba li may yaakaar ni moo baax ci man li ma yaakaar ni moo dal sama xel loolu lay def comprendre nga li nga xamante ne loolu laa yaakaar ni moo baax ci man li nga xam ne yaakaar naa ni moo moo dal sama xel loolu lay def c'est-à-dire yow appréhension bi nga ciy am yow la am nga ci droit mënoo ci dara euh, euh, dafa am benn anecdote sama yaay dafa dugg oto yàgg na boobu pratiquement defe naa ñu ngi seen TV ñun ak ñoom biiju ñëpp mu dend ak ay xale yu jigéen yu mu toog seen ginnaaw wala seen kanam xale yu jigéen yi ñu ngi waxtaan boobu maa ngi soog a marié sama mariage bu njëkk ba comme li Bijou wax ñun dañ ñuy wax dañ ñuy waxal chaque jour voilà di ñu waxal ay euh, euh, kii jaar na fii jaar na fii et mais bon am na ci yoo xamante ni da nga koy parce que bu nekkee tabu rek da ngay dee ci Sénégal donc nit yi bu ñu xamee lu lay metti wala lu lay naqar yi mën nañu la rey gratuitement ci ñiñ ko sañ a wax parce que du ñëpp ñoo mel noonu ñooñu di waxtaan comme quoi que aliment euh, bii mooy xaw ma ñaata sëyam am na am na am na ñetti doom sama yaay mu ngi toog si oto bi tontu leen dafa wàcc woo ma téléphone di ma laaj ana sa doom yi ma ko yan doom parce que boobu man sax maguma doom ma ne ko doom yan mu expliqué ma ma reetaan ñooñu mënoo leen teree wax loolu tu sama bàjjen toog na par exemple si benn xew euh, am kuy wax ni non ñuy werante entre géwél laa wala géer la parce que yaa ngi au devant de la scène mm-hmm. man damay toog ci rajo bi di wax ni géwél laa euh, géer laa may toog di wax ni géwél laa damay ambiance je fais mon li ma yaakaar ni su ma ko defee atteindre sama cible su may mm-hmm. liggéey je te te te sama ngor bañu ko dama koy def mm-hmm. donc euh, sama benn ba sama bàjjan toog am kuy wax ne non non géwél la papaam mooy naar sama bàjjan xëcc chaise moom ko fa neex bàjjen dama njoon maa ngi koy nuyu ne ko kaay wax ma fan la bàyyam dëkk ci <laughs> après mu mujj ci sama jànk moomu ko wax donc c'est-à-dire yi lay seetaan am nañu droit ñoom peut-être xëy na wax ni lay gisee ak yooyu mais yow am nga vie gérer ko comme ni nga ko bëggee cest mu bañ a ci li nit ñi di wax parce que da ngay réer soo toppee ñi di wax da ngay làmbatu da ngay réer à la ah, la Thioro Mandela je que yow moom bu dee vécu am na loo ci war a mën a nettali mhm. je pense que euh, vie public moo moo moo la yóbbu euh, euh, ca maanaam ndugg si comme on le dit euh, donc loolu déjà man ça m'a beaucoup ému ça vraiment beaucoup ému tant femme et tout ak euh, état bi nga nekkoon c'est un combat personnel mhm. chacun a le droit d'avoir des ambitions euh, naka nga ko dundee en tant que femme publique la bëgg a wax parce que li la fa yóbbu woon i tamit maanaam comme tu m'as dit tout à l'heure du dem fa moo la bi mais li la li demin bi moo la metti mhm. waaw comme ni nga ko waxee loolu tax na euh, euh, Adja ma réccu lu baree baree baree bari le fa que ma nekk xëy na femme publique man euh, dans mon jàpp ma ne sax femme publique la parce que ñi may dundal sama famille